xar géej sëñ Malick loo ci xam ak loo mën a wax ci li nga xam si ne moom comme kàddu dégg na ne tam xarit incha allah dina xar ak waaw sëñ maam Thierno ma ngi leen di siyaar bu baax waaw te question bi am na solo lool ndax euh, question boobu lu actualité la ci jamono ji ñu toll te yaakaar naa ay fan rek moo ci des waaye dama am tuuti li mu ci bëgg a leeral yi mën koo dégg euh, ndax nit euh, boo weddee dara da nga koy teg dara wala nga leeral xar géej. Euh, mën naa nekk ñetti anam suñu maam Thierno li ma la bëgg wax nii. ci ñetti anam ñetti anam yi bokkul bi ci jiitu mooy mën a nekk ci nubuwa nubuwa moom la yàlla euh, xare woon géej gi Seydina Moussa ndax Seydina Moussa ab yonent la bi nga xamante ne ñëw na Firawna dàq ji ko mu ànd ak ay taalibeem doo ba ci géej gi géej gi traversé ko yàlla na ko waxal baat yi baadoo yi xam nañ ko. boo demee ci asmaaw barati ya mooy kayfa sa jamakin doom ya kas la woon yax la sun fakkala mun sakkaalun jëm makkala ni kalaw da koo wax ne dóor ko mu xar mu daal dugg ànd ak ay taalibeem loolu mënees na ko ci loolu mënees na loolu nu mu wala loolu baat yooyu dafa am ci may am ci terbiyo baat yi am na noo koy terbiyoo waxuma la xar xar géej xar gi waxuma laa xar géej waaye mën ngaa fekk lu réew géej nga xar ko bu la wuysoo baat yooyu te bu la wuysooyee doo doo yem ci dóor dóor yet de da ngay joxan képp li nga bëgg nga am ko ndax rawaxaani yu ñoo la koy defal ak gindee rawaxaani yu selli ñoo la ko defal baat yooyu soo ko tarbiya woo am sekkal tarbiya ko man ngaa def lu raw xar géej Sénégal dañuy weddi waaye lépp lay wedd da koy teg ci xam-xam xam-xam dafa am dafa am su ma jiwoon boo demee siin gi rek jël nañ ay pont ak i kër jaar ko ci kaw géej gi te loolu xam-xam nangu koon waaye léegi ñëpp gëm nañ ko noonu la amee nag ci asraar ci xam-xam kon sëñ naa musaa moom ci nubboo la ko defoon waaye nag sëñ maam Jorno am la li ñuy wax xar géej ci wilaaya yàlla des na ko maye ci wilaaya nit yàlla mu xare ko ci wilaayaam loolu nag boobaa pouvoir ba tey moom lay doon waaye tamit des na ko defee tamit ci xam-xam xam-xam yàlla ko may ci ñaar yàlla waaw xam-xam yàlla ko may ci ñaar sanastajiruhum mina yàlla da koy may ci jay la ko wala mu may la ko ci coobeeram koo xam ne da koy may ngir nga jaamu ko yàlla. boole ci jay la ko mooy bu mooy ko yàlla may da koo jaayee waawal déet bi may bi yàlla may nit yàlla wala sëriñu daara bi wala yàlla da koo may ngeen jaamu ko yàlla ñaari xam-xam yëpp yàlla mën na cee def loxo ñu xar géej kon am na xam-xam boo xam ne na mënees na cee xar géej ndax loolu du dara ci kàttu nag bu fekkee nit ñi dañoo bëgg a wet ne eh, yonent yàlla Musaa nag moo ko kon ana yàlla ma ko may woon ana yàlla ma ko may woon néew mu nag kuncaana nag mën na ko déedéet waxuma ko de day bañ xam-xam day bañ ñu wedd nubuwa day bañ ñu wedd di wilaaya day bañ di wilaaya loolu loolu laay bañ waaye xam na ko xar géej mën na ko muy nit yàlla nubuwatu mën na ko mooy ab yonent yàlla la muy may mayu ko yantee dong de da ko may borom nit yàlla yi maye ko ci xam-xam kon xar géej xam-xam wilaaya mën na ko nubuwa mën na ko xam-xam mën na ko léegi bu ne nit bu nee mën naa ko bul weddi soo mënti indi ay argument da ngay bàyyi ba nit kooku date bi mu jàpp bu ñëwee nga xool ma def bu dee defut ñu ne am ah, mënu dara su dee def na ñu ne mën na waaye daal maa ngi leen wax ñett yi mën na ko xam-xam mën na ko moo xam bu and ak bu jey bi wala bu and ak bu yalla bi nga xamante dala koo may pour jaamu ko yalla wilaya man nako ko nubuwoo mën kon bu de kun kan na moom man nako nan xaar su de mënu ko ñu xana ne ko la ca war ñu def ko su de man nako ñu bokku na man nako lool la sama xalaat bi nga xamantene ci xam-xam la ko tek ci lool la ko tege moy mbir mi jitu baax baax waaye koy defé ni ku ko man du ko defee bu de ci nubuwoo la do ko nek diko ko médiatiser ak di ko puukaroo déedéet nubuwoo ba léegi koy def da nopi lii yàlla lii la yàlla takkal ci yenant loolu moom yenant yi rek ñoo ko man ñoo ko am yenant yi rek ñoo ko am mooy nubuwaat mooy garaat bi wilaayatu nag muy nit yàlla nit yàlla tamit boo ko mënoon di ko def tamit du ko puugaroo di ko ma jaatise da koy def mën na ko def def koo xamante kenn rek koy xam kooku rek moo koy moo koy siwal te loolu du ko neex te li ci ëpp maxaama yooyu soo ko wanewee say saw saw fan du gàtt say saw ay fan la dese nga faatu bari na bari na boo ko wanee nit yàlla doo ay weer da ndax siiw gi la bëgg moo tax ñu ne karaama xam-xam nag moom looy looy defal sa xam bopp moo da ngay firis xam bu ñuul yàlla bu la jeyee ndax yàlla ñaari xam yëpp lay doxal ndax yàlla ci boobu moo nekk koo xam ne dafa maanu bu dee xam-xam fitis da cee dafa maanu bu dee xam-xam bi ne ñaan ñun nag yàlla moom da koo maye mooy xam-xam yi alxuraan la yàlla xam-xam daal ci gàttal mën na lépp. waaw euh, xam nga fi jamono toll moom. Euh, Ousmane Sonko euh amna ci lo xamantene dama koy digal euh, donte mi nga fagaru ku am kaaraange la nag loolu ma loon xam la na man na wax na sax moo Macky Sall bi di woo Macky Sall jamono jiñ tollu waye nak nag koy digal lu gëna am ci karanga deug nak ba tey ci ci mystique ak ci walu carrière problème ba tey gars yi ngi ci rawat na ci wàllu musique moo tax su ma digal ay mbokkam su ne ay mbokkam mooy ñi ko faral opposants yi ko faral nañ gën a taxawaat cee mbiram ndax ba tey ay mi ñu ngi koy musique ba tey ñu ngi koy xeex ci wàllu politique te musique bi ñu koy xeex bu ko aar bu ko dalee waxuma la du jug waa du gaaw jug li ñu koy waaw li ñu koy waajal li ñu koy waajal ñeenti nga ja ma wala bayi wala giléem ma ngi koy digal bah so baax su ko mënee ñi ma ñi may sa dégg ko nan nan nan ko wutal ay sarax defal ko ko ndax réew yàlla koy joxe waaye li ci ëpp seetaara mooy xeex doomu aadama loolu daal maa ngi ko ci bàyyiloo xel bu baax a baax ak ñu mu àndal ndax léegi nit da ngay toll foo da ngay wax dara lay don ndax yàlla lépp lu mu war rek lépp lu mu war rek du hasard rawatina ci mbir yu mel noonu ay politiciens waaye dañoo bëgg ñëpp am jàmm bëgg nañ Macky am am jàmm ko am jàmm élection yi nekk ci jàmm waaye daal lu ñu ko waajal bu ñu ko waajalee daal na xam ne f nekk cee bañ a fekk wala wala du ko tal wala du ko tal du ko tal ku ci bëgg ay leer na war sama numéro ah. waaw ñi am ben way bu wax ne Ousmane Sonko ñaari soxna ni kenn dana ko ci poisson. hmm ndax lool déggoon nga wa lool loolu déggoon naa ko nag kenn information yi amna waju ko waxon waye peut-être mën na nek na Ousmane Sonko li ci gis moy même mystique bi sax day jaar ci kuko jégué buñ ko doon mystique ci kuko jégué lool lay jaar. ci lay jàpp ci lay jaar wa nak ci ñaar tank ci ñen tank lay jaar ci leen ko defee te day ñen tànk day dund. moo xam gileem ba ba bëy te lañ ko cay def moo tax même entourage nag gën a xoolaat te gën a bàyyi xel boppam li nga ko wax nii ne waxuñoo ko ngir bëgg ci dara ndax ñu ngi teg ci cel asrar ak ci barkeeg ci xelima lu suñu maam dafa waaye dimbali la rek pour mu bàyyi xel ndax 2024 ñëw gu des na ay at te la te ñu ngi ci 2021 moo tax wàllu mystique googu nag gën a taxawaat ci eeramam bu dee am na ñu koy ñaanal gën a góorgóorlu ci moom gën koo yafal. gën koy fa te xam ne ñi ngi koy xex ci musique ak doole bu baax a baax baax turum sa génneen ko réew mi turam. génneen ko réew mi waaw ngir musique loolu man maa ko wax ku bëgg ma ama leer la ci bari bari turam génn Sénégal am aw ci réew ndox pour ñu yóbbul ko fa loolu moom ma nga ca moom gis naa ko ci waaw président Macky Sall moom bu fekkee ne na li ma ca gis ci wàllu ay mbiram mooy maanaam li ci ëpp ci ay mbiram. jamono jii moom nee naa la sonkoo moo kaaraange moo ëpp waaye nag li muy ëpp moom li ci ëpp ay mbokkam dañ koy xeexle Sonko te it li ci ëpp nguuram li nga xamante ne bu saagunu moo ko ci yàqal mooy maanaam ci ay ñu ko jegalee yàqu ñoo ko nar a yàqal ndax bari ay warkat yi ne ci moom moom président Macky Sall te am na sarax boo xam ne feeñ na sarax boo xam ne bu ko Sonko defee kenn mënu ko kenn mënu koo tee toog président am na sarax boo xam ne boo ko Macky Sall defee kenn mënu koo tooy toog président ku dul yàlla ku dul yàlla ñaar ñëpp seen sax da jafee kee ci bi di wam la kee ci bi di wam bu ci kenn ñooy bu kenn ku ci ëpp doole mooy tax mooy yër réew mi ka doole mooy yër réew ko defee sarax waaw loolu na yëfi xam-xam lay laaj nga xool koo koy uri uri gi koo ko jox ko ndaxte feeñ na ci ñoom ñaar seen diggante ñoom ñaar ñoom ñaar seen ñaar biddew yi dafa nekk ci xeex xeex da métti bu dee ci asraar ni ma ko mën a waxee ñoom ñaar ñëpp xëccoo bu métti ci la nekk ci wàllu lépp waaw baati nag lépp ñu ngi ci waaw lépp ñu ngi ci donc faaw ndax réew da nga koy yore ci saayir mooy élection yi vote yi baatin mooy xam-xam bi mënut a ñàkk ñaar yëpp ñuy ànd dooleel nit. loolu nak may mbiri bu baax baax luma ta baye xel la bu baax. Hmm. kon sëñ Malick tey lan ngeen andi mbokk ci wàllum. waaw waaw li indi won mbokk yi leral ñet euh moy li jëm ci walu nopp la dem bëggoon a leeral ndax jamono jël jafé ci nit la rawat na japp ko weex wala tubab wala nit ku ñuul nopp ñaareel ba moy not not ak not ak no bokut man not nit ki ah not nit ki not ko ba li nga bëgg nga am ko ci moom noob nit ki mooy nit ki bëgg la tàggat nit ki mooy li nga bëgg def loolu nit ki mu def ko lu bari doon koy jaawale te bokkul te loolu lépp xam-xam bu jàng la ràññee ko lool noob nit ki mi ngi amee ci ak jubóole mi ñeent ak jubóole ci la bokk noob nit ki sëñ maam Thierno mi ngi amee ci. ko xamantene ne ñaar da ngay na bëggante wala sax nga bëgg mu bëgg la fofu lañ soxla nopp nga xam nga ñëw mu bëgg la par force bu dee goor la mu bëgg la par force bu dee jigéen la mu bëgg la par force loolu dañ cee yor jóoni jóoni lañ ci yor yoo xamantene ne kun ko def juróom-ñaari fan nga gis ko nopp mooy jafa ci nit am na ñuy raxasoo am na ñuy defan lépp waaye nag la ñu gënal mooy koo bëgg a takk wala koo takk ba noppi kon ñoom noonu lu jafe nag bëri na ñoo xamante ne mënuñoo jàpp tubaab dafa am tubaab nu ñu koy noobe naar bi nu ñu koy noobe sunwaay bi nu ñu koy noobe sàppo bi nu ñu koy noobe indi bi sax nu ñu koy noobe loolu moo tax bàyyi xel la am na boo xamante ne mooy noot noot nit ki ba maanaam noot ko ba li nga koy wax mu def ko mooy noot nit ki noot ba li nga bëgg ci moom am ko loolu nit ñi dañ koy jaawale waaw lu mel ne da ngaa da war àtte tribunal nga am koo amal jafe-jafe nga bañ boo demee mu wax wala nga bañ affaire yi sedd kooku danga koy noot kooku noot nga koy def lu mel ne mër mërum làmb mi ngay bëreel bëgg koo daan danga koy noot. di sëf loo ñu def ko. <laughs> lu ñu wax na nemm not la. ñaari match yi football boo xam Europe wala mu mën a doon da ngay not da joueur yi dañuy notante da not équipe bi boo ko notee ba équipe bi du mën a yëngu da ngay équipe bi dugal rek dañu xam lu xew loolu not la loolu not la nit ñi nag loolu mooy not nag am tamit li wax naan tàggat tàggat mooy maam Thione lu ma ko bëgg def la damaa soxla ci moom xaalis mu war a labal damaa soxla ci moom mu jàmm sama xaalis mënu koo fay damaa yore ay millions mënu ma koo fay loolu mooy tàggat. ndax dama ñëw ci maam Thierno def ko la ma koy def mo fay ma sama xaliss ay million wala sax wala sax naan nga am jafay fa ay nit am mu leer ki mën naa lebal xaliss nga fay wala ñu xaw ci sutura nga tàggat ko mu lebal la xaliss ba pare nga fay ko lool may tàggat wala nga bëgg dug ci entreprise wala bërëbu liggéeykaay bu mat wala sax nga am problème keuyit nga xam tuba bi da lay dawlo jox nga ko sa xaliss mu laa lo ay keuyit mu wut lo keuyit wala nga bëgg ci nit dara wala milliardaire dang koy tàggat waaw waaw da koy tàggat tàggat mooy booy dem loo bëgg mu def loolu mu defal la ko man <laughs> la mooy jubóole ñu bari dañ koy jaawale sa sëriñ ci bari dañ ciy nag dag nit dee ñëw la damaa bëgg nangam nga nga ko fekk da nga a jubóoleel bëgg nangam nga noor ko fekk da nga ko war loolu moo bàyyi xel jubóole mooy ñaari jëkkër yi bari yi àndoon ba noppi am ay jafe-jafe ñoom ñaar nga war a jubóole danay mel am na ni day mel ni muur wax muur sa xaj moo xam dañ leen dëddale ba dañ leen dëddale moom dangay toj di da ngay toj di dëddale ba noppi ci sarax ak ki ñaan door leen a jubóole xanaa bëri na sëy yoo xam ne maam Dior fu mu toll da leen dëddale bëri na yoo xam ne raba ko yàq bari bàyyi ko xel sëy yi mel noonu nag da nga da di jubóole gannaaw bi nga defee sarax bi yàq liggéey bi donte ñoom ñaar mënuñoo gisee donte yow sëñ mënoo gis waa ji man man man dëddale noob tàggat noob tàggat non dama ko def fi ma toog donte waa yi mi ngi Europe donte waa yi mosuñoo gisee mënuñoo gisee na ma jox seen ñaari tur seen ñaari tur su ma xamee loo bëgg lépp mën naa ko ci def waaw espace foofu la ñaan toll li nga mën a envoyé vocal whatsapp mu dem ñëw ceew yow ñaan weesu na foofu kon jubóole da nga koy def ci ñaar ñoo xam ne dañ dem génn ba ci digg ba bëgg takkante ñu bàyyante nga jubóole leen ñoom ñaar ñu àndaat jëkkër ci bari tàqali ko nga jubóole ñu ñaar ñu àndaat ñeent yi feeg nit ki xàmmeewu ko seen maam coono mënut a ndax ñaan kenn du ko jaawale soo gisee dina am ñu naan sëriñ ci dañoo naa nga mën naa naa mën nañ sëriñ mën nañoo ñaan xam-xam baa ngi fi waaye léegi nit da dul ràññale boo ràññelul xam-xam bi xam-xam da xam na ràññale boo ràññalee nag doo xam ne xew kon naam ko noonu noob laa la wax tàggat noot jubóole ñeent yëpp mën naa ko def fii